simplement dañu ñëwoon pour son def 9 neuvième congrès extraordinaire et bien ñëwee pour def ko euh, dafa mel ni ñi fi nekkoon bëgguñu woon ñu def ko parce que loolu rek la ñu mën a wax ñun ñëw nañu ak suñu Pastef ak tamit bëgg lu jaar yoon mais sama gars yi ndekete ñoom bëgguñu lépp lan lu leer donc biñu ñëwé ñëwee wan nañ ñu man mi nga xamné ma maa euh euh, euh, section bu gën mak. mag ci Dakar Wa may laaj section bu gën mak. mag ci Dakar ñu ne say délégué duñu dugg parce que dañu jël yeneen délégué bindal ñu fa muy ben ñu jël fan momit di section bu mag ñu jël délégué ñen ñu génne leen le secrétaire général de Albert Royer même dañ ko génnee bokkul sax ci délégué yi fan la mën a ne l'hôpital de Pikine Dakar lan moy Dakar sans Pikine sans Dantec sans Principal sans Kermassar c'est pas Dakar vraiment je suis désolé Dakar sans Dantec Dakar sans Principal Dakar sans fan Dakar sans Albert Royer Dakar sans Pikine non Dakar sans Kermassar mais c'est quel Dakar je suis désolé et également quand on parle du SUSAS, le SUSAS, c'est Dakar et Thiès. Ah le SUSAS, je suis désolé. C'est Dakar, non. Nous waxtan dañuy waxtan deug ci là. mom moy ñun ñoo fi ëpp ñun Dakar sunu ginaaw Thiès moo ci top. Ah donc quoi? Non, mun a defee ak Matam Saint-Louis noo mun a defe nga ne yaa jël raw gàdd gi alors que amoo Dakar amoo Saint-Louis amoo amoo amoo amoo Dakar amoo Thiès amoo Matam amoo Matam amoo Louga waa léegi Kaolack new fa waa léegi ngeen ne loolu loolu la ñun xoolal ñooy sut sas ñooy sut sas tey ñooy sis ak ëllëg demuñu bougé wuñu ñun ñooy sut sas te dañ ciy dem ba jeex on va SUTSAS SUTSAS SUTSAS SUTSAS SUTSAS donc kon loolu ñu ngi topp si suñu ginnaaw incha allah secrétaire général Pape Mor Ndiaye de Thiès li ci kanam nag raw yi lu bët nañ dem dineen doxal ba mu neex incha allah di leen ne si saas piir lañu te kenn mënuñu tere nekk si saas waaw dañu ne booy ñëw pour nekk candidat waaw bokkal fen bokal fen mais laaj leen ko moom ban section la nekk. ci retraité yi. section retraité ñaata ñoo nekkoon ci salle bi te amuñu nekkuñu fenn. ñu la ñun a ngi fa woon. ñenn ñu ngi fa woon. yéen waa Thiès yéen a fa woon. amoon na pepp pepp Dakar yu fa nekkoon.

Nous devons être secrétaire général honorifique honoraire et que nous devons ko nous que nous nañu kenn nit nit compétence kenn ne background mais il faut savoir s'arrêter c'est ça le problème notre seul souci c'est que mu po jox flambeau bi c'était ça le problème waaye loolu mooy problème c'est le seul problème nañu suivre taxi yi réforme na nekk ci nous yi ñu teg lu leer ñu jaar ci kaw mais ce qu'on a vu là c'est tout sauf la justice c'est tout non c'est ça c'est ça la boo waaw ku bokkul nooy demee ku bokkul ku bokkul nooy demee léegi dañuy laaj ban liste la nekk L'UNSAS n'a pas été neutre. Il y a eu des problèmes. J'ai posé le débat pour dire que mes délégués sont d'or. Les délégués de Pékin ont été remplacés. Qu'est-ce qu'ils me disent Qu'est-ce qu'ils me servent pour me dire Et de Karmassar, qu'est-ce qu'ils me servent Oui, les textes n'ont pas prévu hein, euh, de régler ce problème-là. Si les gens ont laissé les... Ils ont donné une autre liste, c'est pas ça. Et on a appelé notre secrétaire général de l'Union régionale de Dakar. Malheureusement, malheureusement, malheureusement, non, non, non, c'est inacceptable de venir devant les gens et de dire tout sauf la vérité. De dire tout sauf la vérité, c'est lâche. C'est lâche. Et puis oser regarder les gens, les yeux dans les yeux, dans les yeux pour dire autre chose que la vérité. Oh là là, quelle, quelle, éthique Et avec lui, ils pensent qu'ils vont amener l'Union régionale de Dakar en avant. Non, ce n'est pas vrai. On verra bien. L'Union régionale de Dakar sans Dantec, l'Union régionale de Dakar sans Fan, l'Union régionale de Dakar sans Albert Royer, l'Union régionale de Dakar sans Principal, l'Union régionale de Dakar sans Pikine. L'Union régionale, non, je parle de Dakar. L'Union régionale de Dakar sans Kermassar. Mais c'est quelle union régionale et le Soussas, je l'ai bien dit tout à l'heure, le sud Sans les régions. Sans les régions. Hein? C'est ça le problème.